Heavyweights.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 waay waa élément commissariat bu jàmmagan si kam mbaaw ñoo def lu ni mel chef de gang bu mag boobu nag mu ngi woo ci turu Inzaghi moom daal akub gangam cappang bu caaroy la ñu doon nekk ku fa jaar ñu agressé la la ba noppi nettu ngañ li nga yor yóbbu li leen daane nag mooy ab waay moo doon ñibbi si ca Tiwaawan jak saaw yoroon moto scooter bi mu ñëwee ba ci pont bi la gang boobu arrêté dal koy songu jam ko ci baat pëtëlëw nu nan deete waay ñu nangu scooter bi mu yoroon ak cinquante mille francs yi nekkoon ci poosam ma ne sa waay ko yàlla dimbaliwul woon leneen la ñuy waxaat waa jooju ñu agressé nag moo déposé plainte ca police bu jàmm gën si kàmbaaw ndax ci ñooñu ko doon agressé daf ci xammee woon ñetti nit waaw góore waay naka noonu nag ci lañu ñu lankete ba jàpp ci juróom ñetti personne waaye chef de gang bi di wuyoo ci turin zagi moom may def police yi di ko wër bawunu ko bawunu ko ba ab opération de sécurisation ñu doon def ci lañ ko tegee loxo ma ne sàcc ndënd yomb na waaye foo ko tegee jafe laa wax waa jooju nag ba ñu ko yóbboo ca police bu jàmmakan si kàmbaaw ñu doon agressé ca bërëb boobu ba ñu ko yegee foox la ñu def dem wuti ca commissariat ba moom daal bi ñu yegsee ku ci ñaw rek ne waa la waa ji moo doon agressé ma ko dugg nga ni ruba sunu police bu xereñ bi ma ne sàcc ndënd yomb na waaye foo ko tegee jafe moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Bakel romb na doy waar ab étudiant la fa ab sàmmkat jam ba mu jaare fa ñàkk bakkanam musiba naaru lay mbir moomu nag nee ñu liyee ko indi étudiant bi dafa demoon ci village am nekkoon ci tool ya ngir am lu mu def ci ay frais scolaire am maanaam toppatoo njàngam naka noonu nag bi mu nekkee ci tool yi ci la ko fa sàmmkat bi fekkee ne ko dem sa yoon ndax sama way jura ngi ñëw <laughs> waay waay waay li yomb na nag ci noonu eti jang bi lànk ba tëdd ci naaj bi ci la ñu jàppantee ñoom ñaar eti jang bi téye ci loxo bi waaye sàmmkat bi daal paakaam la génnee jam ko eti jang bi mu daanu ci suuf deret gi sangu ko ba fa saa si la jaaree ñàkk ba kanam <laughs> ma ni sàmmkat yi nag paaka yi ñu yor li muy def ci musiba ëpp na war nañ koo xoolaat de bi ñu informé gendarmerie nag ci la ñu ñëw arrêté sàmmkat bi néewu eti jang bi ñu yóbbu bu Tamba <clears throat> ma ne ma waxaat ko paaka yi pëli di sàmme li muy def ci ay crime mu ngi bëgg bëri moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca Matam romb na doy waar ab xale bu jigéen daal moo fa ñaan jëkkëram baat jëkkër gi jël fetal door ko ko mu jaare fa ñàkk bakkanam <clears throat> ma ne toog leen rek ñuy rey nit ñu ñu nan peine de mort ngeen naan déet déet nit ñi na njeex de musiba boobu nag mu ngi xewee ca village bu ñu naan Ngurel jëkkër jooju nag xam naa kat la ndax ne ñu dafa doxi ba xaaju guddi dal di ñëw dugg si ci kër gi bi mu dugg see ci kër gi jabar ji daal di koy songu ne ko mënatumaa dund li ni mel ab góor goo xam ne ñoxor njaay mu doxi ba xaaju guddi dellu si fi mu ne sama boolu bu ñu kaay jeex na ne ko nag danga ma may sama baat tàmbalee buub ay bagaasam te kër gi bi mu demee ba xam ne ndaw si caaxaanul mu génne fetal nu naan deetawaay mu jëmale ko ci soxna si door ko baru fetal mu jaare fa ñàkk bakkanam waay waay waay waay waay waay réew mi baax na rek sawaay nag bi mu defee lu ni mel foox la def daal di daw waaye daawam yooyu nag mujj ta yàgg ndax gendarmerie bu wuro soogi fi mu ne teg nañ ko loxo ma ne ko dugg na ni ruba waaye nag réew mi wax dëgg yàlla rey gaa ngi bëgg a bëri tell tël tell ñoxor njaay ñu rey ñoxor njaay ñu faat ñoxor njaay ñuy ray nit ñi rey nit ñi rey nit ñi rey vraiment réew mi lii len rek ko fiy dindi ku ray te tëral ko rey ñu tëral la rey mu jeex takk waaye ñii ñu ngi bëgg a jeexal nit ñi mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz